alhamdulilah ñëw leen seen revue de presse lamb samedi tey jii la ca a fës suñu lamb mu ngay ñëw ci Go Salam production ak programme bi ñuy indil après koor gi dimanche ba njëkk dimanche 14 avril diggante Max Crési bu Papakan ak Boylo bu Caaro yi suñu lamb mu ñu xamal ne ca combat spécial ba diggante Tyson gin gi neew ak ki nga xam si ni moo di Ambroise lay doon Siteu bu Saalum dina ca dajeek Arsenal Eumeu Sène numéro 2 daje ceeg ki ga xam si ni mooy Sinapeur góor fit daje ceeg Sa Thiès bu Kër Massar Papa Yadda numéro 2 daje ceeg ki nga xam si ni moo di Ferraille daje ceeg Delta bu Grand Yoff suñu laamu mu nga ñëw ci caatu Papa Kan dina ci dajeeg Boy fay lakkale daje ceeg Mbay Xadaa numéro 2 ginnaaw combat yooyu ñëw ci yenen combat yu am solo ñu ci ànd ak waa kër sëñ Modou Niang diggante soq de bu jaxaay ak ki nga xam si ni moo di mbéng mbooro nekk na làmb ju rëy waaye bu keroogee Zarko numéro 2 bu ékri jàmm gën si kàmbaaw dina ci dajeeg Papa Balde bu Pikine combat yi du yem foofee Paul Maurice numéro dina ci daje ki nga xam si ni moo di Boka suñu laamu mu ngay ñëw ci yeneen combat bokk na ci Badou Boy dina ci daje ki nga xam si ni moo di Balla bu Pout ki nga xam si ni moo di Jinde Mbay dina ci daje ki di Jules Balde Junior Bébé Walf dina ci daje ki nga xam si ni moo di Siiru bu Bawal combat yaa noonu Jéen bu Déggoo dina ci daje ki nga xam si ni moo di Bada 2 le 27 avril lay xew ñu ci ànd ak Muñang production beneen làmba nii ñu ci ànd ak Jëndeer production le 11 lay doon diggante Tonnerre ak ki nga xam si ni moo di Tony Junior waaye combat spéciale ba dina dox ci diggante vite fait ak ki nga xam si ni moo di dab daan kon programme yaa ngi noonu après koor gi ginnaaw loole ñu sant leen gërëm leen te di leen ñaanal weekendu jàmm yow mi yor sa sànce bëgg karole sa kër ba muy nes na si gaawal gaaw seet si waa Taïf Karo ñi ngi fii jàkkaarloog hôpital CTO nee naa la ay karo ya nga xamante ne bii du os du furi da ngay fomp muy gën a rafet fii dong la ci Taïf Karo Jibi Bamba mooy gérant bi karo yu baax yépp fii la ñu joxante rendez-vous ci suñu biir place bi nga mën fi fekk karo italien espagnol wala indien yu ci mel ni ay grès poli 60 60 wala poli 1 vin yii nga xamante ne bii pour salon la salle de conférence wala couloir ay caro décoration pâte de verre yu amul fenn ay carreau faïence pour cuisine wala toilette lépp loo soxla ci wàllu baguette am na fii yow mi soxla ay carreau parquet gaawal gaaw ñëw fii ci Taïf caro andi leen ay sièges anglais yu bees tax ya nga xamante ne bii ay nouveau model la wax naa la lépp lu jëm ci wàllu sanitaire Taïf Carreau moo ci mën ay carreau grès salam grès émail wala grès poli 60 60 ay pâte de verre ba ci ay plinthe ay mars escalier wala contre marche ay karo espagnol 60 60 40 wala 50 50 nga mën fi fekk jibi bamba bii nga xamante ne bii spécialiste la ci wàllu jaay karo mbokk yi nee naa la roy du nuroog pire te ki mën ak kiy jéem bokkul jëlal suñu numéro téléphone jokkool ak jibi bamba ci 77 745 76 88 ak Taïf Karo seen jafe-jafe ci wàllu karo jeex na tàkk.